asalaamaaleykum euh, maa ngi sant yàlla bu baax donc li xew mooy événement une cérémonie de remise des carnets CMU aux différentes familles de Diourbel euh, famille yi am na yu Cerno Kanji yu Kër gu mag yu Kër Cheikh yu Grand Diourbel maanaam waa Njaareem yëpp daal far leen ay carnet la ñu organiser ñun ak waa CMU li tax ma sabablu carnet yi mooy euh, suñu suñu leader suñu suñu président de coalition suñu suñu candidat dafa décrété woon année sociale année bii mu def ko année sociale bon mu nekk loo xam ne euh, bu ko décrété ñun ñi nga xam ne ñun ñooy relais yi ci wàllum politique di ay relais ku ci ne am ci foo ci war a féete ak loo ci war a dox man ma xalaatoon ne euh, nga xam ne man déjà damay yëngu ci domaine éducation ak santé ci laa ci laa yàgg di yëngu bon li nga xam ne éducation bi la jotoon naa fi def ay ay action yoo xam ne loolu bayoon naa ci sama waar en 2012 donc ci mbirum ay ordinateur dimbali élèves yi bi yoon ma ne comme année sociale bi la léegi naa jéem a saytu ci wér-gu-yaram bi xool nu ma ci nu ma ci jàppee lan laa ci mën a bayu ci sama waar ma gis ne CMU bi euh, li wolof di wax fagaru moo gën faju donc ma ne xaaral fa yàlla nga am ordonnance junni euh, nga am carnet nga fay ñeenti téeméer wala nga dem hôpital wala dispensaire wala jënd euh, ticket boo xam ne mille francs lay jar nga finalement ticket bi revenir la 500 francs wala ci dara loolu nit ñi dañ ko war a yëg information bi dafa war a jàll ñu xam ko ñi nga xam ne seen loxo jotul pour ñu defar lu këyit yi ñun ñi nga xam ne ñoo fi nekk nekkal fi askan wi ñu ñu jàppale leen ci ba nga xam ne nañ jot ci carnet yooyu ba mën a gis njëriñ li loolu moo taxoon ma jóg ne ne dinaa jàpp ci année sociale bi pour def ko jàppale ci le président Macky Sall. ma ci woo d' abord le président Macky Sall moom laa njëkk a def le parrain moom ak soxnaam ma def soxnaam la marraine. autorité yi nga xam ne euh, ñoo nekk ci dëkk bi. invité naa kilifa diine yëpp yi nekk njaareem yëpp. weesoo invité naa kilifa aada yi fi nekk gouverneur. préfet président conseil départemental ak euh, association mouvement de femmes groupement de femmes yi fi nekk conseil national de la jeunesse monsieur le maire invité naa ko tamit weesoo invité naa ñépp ñi nga xam ne ñoo nekk ak man ci coalition Benno Bokk Yaakaar ak APR bu Njaareem maire yi nekk ci commune u Njaareem yi yépp les onze communes ñoom ñépp yónnee naa leen seen carte invité ñi nga xam ne tamit bëgg nañ carte te amuñu ko woon maa ngi leen di te nga xam ne amuñu woon carte même buñ jotul invitation maa ngi leen di woo ci bés bi ñu ñëw toog dinañ fa di ubbi benn liste boo xam ne bu ñu defaat deuxième phase inscription yi incha allah ñu inscrira leen ci maa ngi leen di gërëm di leen sant